mbokki jullit yi rawatina it mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu nuyoob islaam muy juróomi baat yi ñu suñ borom subhanahu wa boole te mu gën ci mboolem lu ab jullit di nuyoo muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di ñaan itam taxawaay bii ñu bëgg a taxaw ci dimbali nit ñi rek te lépp dëppoog ngërëmal yàlla sunu borom itam def ko muy ngën gi taxawaay biñ gën a taamu ci ab jullit te itam muy taxawaay boo xam ni mbooleem koo xam ni bëgg ngaa gindiku njariñul àdduna ak njariñul alaaxira incha allahu taala tey jii mooy émission bi njëkk bi nga xam ni moom lañ bëgg a tàmbaleeg yéen kon itam liñ ci jublu rek mooy dañuy wax suñ taxawaay fii ñu jëm ak li ñu tax a jóg ngir nit ñi mën koo xam cëslaay lu mat cëslaay li ñu tax a jóg euh, dara taxuñoo jóg loolu itam euh, xam-xam bi nga xam ni suñ borom subhanahu wa taala def na ko ci ñun ñu bëgg ko itam ñu bëgg koo yaatal itam ci mbokki jullit yi rawatina it mbokki taalibe yi te lépp dëppoo ngërëmal yàlla ndax kat euh, sëriñ bi dafa waxoon ni fa kullu man qad baxila bi ilmihi fa innahu qabla al mamaati yubtala koo xam ni itam suñ borom xamal na ko ab xam-xam te xam-xam ba itam yaatuwu ca nay ca suñ borom dana ko nattu ci àdduna te itam buñ jëlee aba abo ishaq mas na jële ci mu ni dafa dégg dafa dégg ci sufyaan athawri yu mu ni dafa wax ni man baxila bi ilmihi ubutala bi salaas koo xam ni dafa nay cib xam-xamam day suñ borom dana ko nattu ci ñetti nattu ñetti ñetti nattu yooyu mooy ban ak ban imma an yansaahu wala yaxfasu bi ci njëkk mooy dana fàtte lam doon jàng wala du ko mokkal ñaareel ba itam dana faatu te du jariñu ñetteel ba itam lam daa jariñoo muy téere yooya mën naa dem ba dootu ko gis sax te loolu lépp ci ñàkka tàlli cib xam-xam moo koy waral te itam sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni taalamul ilma fa inna taalamahu qurbatun ilallaahi azza wa jalla wa taalimahu dafa waxoon ni xam lu leen xam-xam ndax kii xamle xam-xam day jige boroomam loolu itam tax na ñu bëggoon a ñëw ak ci xam-xam yi ñu bëgg a ñëw njëlbeen gi itam muy loo xam ni ku ne di nga ci mën a jariñu foo mën a nekk rek di nga ci mën a jariñu te lépp rek ni ma ko waxee sànq dana dëppoo ngërëmal yàlla te itam ñu xam ni fi ñuy njëkk a ñëwee mooy bismillahi rahmaani rahim nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni mbir moo xam ni yéen a ngi koy commencé leneen lu bismillahi rahmaani du am barke mbaa barke ba day manki ñu ñëw ci jagleel yi bismillahi nga xam ni jëpp jëf nit ki jëf te te tàmbalewu ko bismillahi rahmaani du am barke mbaa barke ba day manki loolu itam tax na ñu bëgg cee ñëw njariñ yi ci ne ak ñi ci nit ki mën a jariñoo te nit ñi di bàyyi wax ni rek yàlla na ma jariñ nit bu jëriñee nit mu jariñu bu lore nit mu lore waaye def dara taxutu am dara loolu euh, Sëriñ Tuubaa nee maa ngi muslu ci ki koy wax waaye mu teg ca ni ki koy wax bi indi inni ahonsu minhuma bi rabbi tërëb xol rek la moo ko jàpp maa ngi muslu ci saa borom ci kiy wax loolu te itam sun borom moo ni wa aataynaahu min kulli shay'in sababan fattabi sababan wér na ni man yàlla day maay ki def sabab yi kon andi ko ci yéen topp leen sabab yi nit ku ne mënut a jëf lenn te jaariwut ca sabab ya ndax mbir mu ne dafa am sabab kon sabab si nit ki mën a jaar ba mucc ci àdduna mucc ci alaaxira faw faw bokk na ci njariñ yi ñuy bëgg a indi lu mel ni bismillahi rahmaani nga xam ni moo ëmb mbooleem lu nit di sàkku nga xam ni boo nee bismillahi rahmaani rahim bind ko ba muy téeméeri yoon ak fukk ak ñeent muy cent 114 yow mi nga xam ni bind nga ko def ko téere itam takk ko suñ borom dana la musal suñ borom dana la sàmm suñ borom dana la aar suñ borom dana la defal nit ñi soppala lool suñ borom dana la defal ku la gis weg la suñ borom dana la musal ci buur yi àddina yeeg seeni pexe te loolu bismillahi rahmaani rahim la nit ki bind téeméer ak fukk ak ñeent bu fekkee mënu koo jàpp ci tënk-tënk saari alquran yi 114 la muy téeméer ak fukk ak ñeent tënk-tënk boobu mooy bi nga xam ni ñëw na ci Majmahun Nurayni bi nga xam ni Serigne Touba moo ko bind. kon loolu ñu leen wax ci bismillahi rahmaani rahim waxi cheikhul xadim la joo xam ni ku ko def rek da ci jëlee njariñ lul adduna da nga ci jëlee njariñ lul alaxira te itam ñu ñëw ci ba tey baatub arrahman ndax. li ñu tax a jóg tey mooy bala ñoo ñëw ci yeneen yi njëlbeen gi lépp doon bismillahi rahmaani rahim ak jagleel yi mu am kon tey buñ ñëwee ci arrahman arrahman moom njariñ li ci ne moom ëmb na yiwu àdduna ak yiwu alaxira ndax ki nga xam ni moo moo moo koy saxal di wérdu saa yu jullee julli farata ba noppi saxal ko fukki fan ak ñeent yoo xam ni saa yu jullee juróomi waxtu yi ba noppi dana ko def junni yoon kooku sun sun borom subhanahu wa taala dana ko wuññil mbooleem mbir yu nëbb yi te itam sun borom subhanahu wa taala dana ko wuññil ba mu gis malaaka yi ci gisin woo xam ne gisin wu sell te dara du ko mën lor loolu itam ñëw na ci li Serigne Touba doon jàngale kon nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax te itam danañ la jariñ te itam dara du la ci lor waaye day aajowoo ki koy def laab ndax jëf ju baax jëpp bala koo nit a def rek laaba ko jiitu te itam bu ñëwee ci kon arrahimi goog nga xam ni fi la daaneele arrahimi dafa doon jagleel yoo xam ni sëriñ bi moo ko def te itam jagleel la yoo xam ni ku ko def rek mën ngaa mucc faaw faaw fii ci àdduna te itam mën mucc faaw faaw fii ci àllaaxira araximi moo doon loo xam ni ku ko bind ñetti téeméer ak fukk ak ñett ni ko sëriñ bi waxe woon ni wa iza katabta arrahimi mihatayni wa tisatan wa tisina wa alaqta dalika alkitaabu fa innahu la yacmalu fiika assilaahu wala yaxsulu laka minhu dararun wa kullu man laaqaaka min al aadaai fa innahu yahrubu bi isnillahi nee na ki nga xam ne bind na ko ñetti téeméer yu manqué benn ci gàttal ndax kiy dégg mu gën a neex a dégg ci moom nga naan ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ñetti téeméer yu manqué benn ginnaaw ba itam bi ko bindee mu def ko téere takk ko suñ borom dana ko musal musal ko ba lépp luy lore du ko mën a lor te amul lenn ngànnaay loo xam ni dana mën a lor nit ki ko takk tey itam ku dajeeg moom ci ay noonam ñu ngi ko waxee ni wa kullu man laqaaka min al aada yi ku dajeeg yow ci say noon fa innahu bu day daw rek bi isnillahi ci coobare yàlla kon loolu itam lu mat a mat a bàyyi xel la ci arrahimi baatub arrahimi nga xam ni ñeent yooyu yëpp ñëw na muy bismillahi rahmaani rahimi ak arrahmaani faqat ak arrahimi faqat loolu itam liñ ci jublu li tax ñu njëkke ko mooy euh, mbir mu nit di tàmbali te du ak mooy yàlla rek war na caa jiital bismillahi rahmaani rahimi kon loolu mbokk yi bàyyi ci xel bu baax a baax xam ni jariñ rek moo nu tax a jóg te itam fas yéene nañ koo ànd ak yéen dem soob na suñu borom te lépp ni ma ko waxee woon dëppoo ngërëmal yàlla te itam bàyyi naa ah naa bàyyi saa bopp yàlla rek loolu suñ borom waxu ko def nii ni wa aataynaahu min kulli shay'in sababan fattabi sababan topp leen sabab yi man yàlla maay ki indi sabab yi tey itam muslaay dafa doon loo xam ni mag ñi fonkoon nañ ko lool mu mën a musal nit lool nga xam ni mën nga cee mucc àdduna ak alaxira rawatina itam fi jamono toll jamono ji wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu